Ronaldinho maa ma maa ngi lay siyaar. sant yàlla rek. sa combat ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Dakar lan nga ñu mën a wax ci combat bi. ah combat bi nee naa leen rek kon ni ñu ko doon waajee yeneen combat yi amaana te yen amateurs yi wala yéen journalistes yi yéen yéen a diisaloon combat bi mais combat bi mënul diis sama kanam parce que tey exemple Kaaw Gourné yaakaar naa ne moo gën a métti si booy moo gën a naqaree bëree si booy te Kaaw sax maa ngi koy moom tey la anniversaire am maa ngi koy ñaanal lu bëree bëree parce que Kaaw macha allah. mais combat bi moom dañ ko doon waaj kon ni ñu doon waaj yeneen combat yi quoi sans pression non problème yooyu noonu quoi. waaw gis gis nañ ni ki ngay bëreel dafa mën bëre mais tey lan moo tax nga focaliser xeex bi. parce que moom daf na woon daf may duma looloo tax quoi daf na woon daf may duma moo tax quoi ma ñëw wan kee man maa la maa la gën a bëgg a xeex yaakaar naa ne ku ci ku mos yoonu Espagne mii nii aller retour yaakaar naa ne boo ñëwee ay jàkkaarloo sa morom góor di war du la déranger quoi Fan Madia xoolal géej ni mu mel yow nga yéeg ci gaal banta ne da ngay dem Espagne ah nga dem def si def si ndox mi douze jours quatre jours yoo xam ne lekkoo naanoo exemple kon boo ñëwaatee fii nii jàkkaarloo sa moroom góor ay dóorante yooyu du la sax. mais tànk bi ko tegal tànk tànk tànk bi tànk bi nga ko sexal. moo tax sexaluma kasaade mais dama bëgg a xam ne booy Dakar sama tànk quatre cent quatre dimanche du ma si daan mënu ma si daan mënul ne ah ah. parce que fan ma yow kenn loo di ñëw. macha allah dama dama mën a bëri. billaay walaay dama mën a bëri te du ñii ñoo may daan. déedéet sama ngembal yi du booy ñoo koy laal suuf. mais bu ñëwee bëre bi gis nañ ni yow moom am na a avertissement suba juumul xaw ma kat yow sa avertissement bëri lan moo tax maintenir au temps bi. waaw mais nag xam nga làmb moom moo baaxoo nii des fois nga ñëw yaakaar ne noonu la tadu noonu te booy Dakar du ngaa ko yaakaar naa tamit tëlewul moom day jéem a ñëw man damay bañ a pour ay avertissement looloo waral ma taxaw loolu moo waral làmba ji nii quoi mais arbitre bi nag arbitre c'est le maître du terrain quoi. kan dem see. ok ma ah, bi chute bi arbitre bi fan la sifflé chute. waaw ah, def kàllaa bi yàlla xam na ne ma. man xaw sax xaw ma ko man xaw ma ko sax. billaay xaw ma sax fan la ko joxee avertissement. waaw sa na jël sama tànk. Ah. daw na jël sama ma bàyyi ko sama tànk njaab njaabu golo génn mu def trois appui ñu yaakaar ne laal na mais nag arbitre c'est le maître des terrains quoi arbitre day jum doomu aadama la comme ñun quoi ñun dañ koy comprendre mais ñun am na lu ñu yoon may dañuy dem def li ñu yoon may mooy dem def dépôt suñu retour après parce que lii non du ma ko nangu. kon jàppoo ne daan salaatu faatiha bu fekkee booy Dakar daan ma yàlla bu ma amaat ndam ci stade bii nii. Oh, bu fekkee man daanu naa. bu fekkee man daanu naa yàlla bu ma amati ndam sama carrière yàlla nag moo yor ndam mais dama ne bu fekkee Boy Dakar daan na ma yàlla bu ma amati ndam li de sama carrière trois a laa def. mais ñu gis ne même sa combat Kaw Gourdin ba nga demee si la joxaatee ci li nga xamante ni moom mooy sa victoire. waaw mais nag arbitre yi dañuy juum ay doomu aadama la mais tamit seen seen jàngat wala seen nar a jàngat sax seen der bi nañ ko xoolaat quoi. parce que xajul si bopp góor wax na ko li may bëre billaay arbitre bi mënuñu ko maîtriser barki alxuraanu kat mënuñu maîtriser samay combat mënul ne kii xam na li may bu baax kii bu yàlla wa dëgg rek te yàlla tax bu nit waxee dëgg rek bu nit waxee dëgg kii boo na si ñi ma taal yàlla dëgg la bëgg quoi doomu aadama waroo soxor mais dama ne la arbitre yi mënuñu ma maîtriser mënul ne parce que man bëre bi may bëre moo xajab Palma man dama mën a bëre yow kenn du la wax di ñoo billaay walaay booy Dakar yi mënu maa daan moom gëmuñu ko sax. fan laa jëm damay dem ondu la fu mii doon taal ni ko ay ay ay fu na ñëw ñu bëri. ondu la fu mii topp Zarko di wax na ñëw bu ñëwee ma ñuus ko daan ko barki alxuraan mu ñëwee ma ndox ko daan ko moo du may ondu la fu mii jàpp Zarko di ko manqué de respect te Zarko ñun ñëpp suñuy grand frère lan non Zarko budul dara Zarko Zarko sama adversaire mais du dërëm on na ñëw bu ñëwee ma duma ko daan ko eh. bu ñëwee ma duma ko daan ko dama sonn si booy kii mooy woon dëj dëpp gi kii mooy dëj dëpp gi booy dagaat mooy woon dëj dëpp gi ngeen moo gën a si booy moo gën a dëgër bopp ci daa dëgër bopp bàyyi leen yéen dafa fan waaw bàyyi leen booy barki Serigne Babacar si ma mayeti booy chance billahi ma mayeti booy chance dama sonn si booy quinze combat 14 10 victoire 4 défaites benn sans verdict ah mais tamit dama koy duma daan ka. waxal wutal beneen kële da koy suqi waxoon da koy suqi day ubbi dóor bu arrangé wu ko waaye Dakar mënu xeex. waaye la bëgg may nga ko lu bëgg songati nañ jàppante moom moo ko arrangé waaye Dakar jàpp na ngeem. Ronaldinho jàppule combat ba dina jexe fii da koy suqi buy dóor waxoon naa la ko day gën sàkk day gën eh, deuxième partie Ronaldinho bu sunkaan gëy moo ñëwoon ginnaaw ngeen bëggee bul weex li ak Boy Dakar bu duur Bakar Sarr moo xonk <laughs> moo xees xonq xees ngeen moo ngeen muy vert li ko daan na ko da koy daan da koy daan sam ne xat am fi nen ba nen ba abi bi dafa nen ba waxoon nen ba la woon joxal nen ba nen ba la woon nen ba la woon